léegi loolu dafa yomb. waaw boo dee wax ak nit dëgg waaw loolu moom ni nga ci jël décision bi nga ci jël boo dee wax ak nit moom sa baat kenn ko nëbb. bu dee nag da ngaa am sa yëfi yëfi bopp sa vie boo ñëwee ñu masqué baat ba kenn du la xam. Mhm. waaw kon loolu la moo tax élément bi tey dama ci gàntal ba altine ak jàmm. Mhm. incha allah li ma bëgg ñu waxtaanee ko rek tey incha allah muy président Macky Sall ci conseil des ministres bu mujj bi mujjee def euh, wax na <coughs> ministre am ñu gën a defaraat communication euh, état bi nga gën a li nga xam ne mooy ab liggéeyam te muy dëgg nag ndax liggéey na fi lu bare baree bari loo xam dafa ministre yi dafa mel ni ministre yi ci seen bopp la ñu nekk ci jamono jii dafa am benn kuréel bu ñuy wax euh, visikis euh, boo xam ne daal dafa def benn euh, rapport maanaam benn gëstu boo xam ne ba génn rapport daal wane ni Sénégal bokk na ci réew yi gën a dellu ginnaaw ci wàllum liberté Euh, seen i ñooñ bu ñu dajaloo bëgg a def seen mbir wara a ko ñu aaye leen ko yeneen yu ni mel yu bare bare ku dem ca journal ba gis ni lim na ko daal Sénégal bokk na ci réew yi gën a dellu ginnaaw bu ca xajee maître El Hadj Diouf nee na képp koo xam ne rek jël nga ab dërëm joxe ko ci caution bi nga xam ne joxe na ko muy 30 millions ngir bëgg a nekk candidat nga génn waxe ko nga génn wax ko te itamit nee na programme am mooy su ñëwee taxi avion daal dana fi am maanaam embouteillage dootul am ci dëkk bi ak Ndakaaru ak yeneen yu ni mel fu waaye jëm bu la neexee ni yomb ceeb avion ba fa nga jëm dëkk bi yëpp ñu paawaas ko def ko tali mu mel comme Europe kii mooy candidat bu baax bi numéro am nag ñu fàttali ko mooy 84 4 waaw man li ma jaaxal mooy numéro bi moom ba mu ko waxee dafa. loolu lépp sa yoon néew ci ñëwal rek 84. Ah, mais constat yu ñu la. il faut bàyyil constat mais 84 la rek. son yi boo déedéet yow. ah non non non El Hadj Diouf moom bëggoo ko. yaa ngi nii chaque jour su defee dara nga jël ko. non bokkul mais tey mii. le programme bii mu wax bëggoo ko. bëggoo dëkk bi yëpp ñu pavage ko. bëggoo mais moom moom kañ la fi diggante yow bëggoo booy dem Thiès yow saa yoo dem Thiès nooy def coono yi ngay daj bu fekkoon da ngay jël avion fii nii cëpp. il faut il faut nga déglu ma ah non la fi programme bi changé parce que moom dafa ne woon day créer ay hélico yoo xamante ne nii ku fi def lu mu war a def mu mu. bomb waa génn na ca. ah mais de c'est juste des questions. waa génn na ca. génn na ca ku taal ma taal. génn na waa léegi loolu moo tax nga bàyyi fa <laughs> lële léegi lu tax nga bàyyi fi lii. <laughs> léegi lu tax nga bàyyi fi lii di jàpp ca taal ku taal ma non non dafa joxe woon c'est que Ben El Hadj Diouf bu fekkee ni à tout moment saa suñu la invité nga indi programme bu bees nit nag da am benn gis-gis ñu xam ne yow mii lii nii mooy sa programme mm. mais buñ la waxee tey buñ la laajee luy sa programme nga tandaat wax ne ay kii ak nangam taal ma taal tey nga ñëwaat nekk ay kii yu loolu dafa mën a nekk sax waaye léegi ñëwal ci Civics Monitor bi nga xam ne ab kuréel la bu def ab rapport a ni Sénégal bokk na ci réew yi gën a dellu ginnaaw ci wàllum liberté Euh, démocratie. waaw loolu sooy bu soxlawu sax ñuy def rapport pour xam ko parce que Sénégal wax fa dëgg yàlla surtout ñetti année yi ñu ñu génn. Ah. moom da ngay seetlu ne dellu ginnaaw bi dafa rapide ba nga xamante ne nii. Mhm. dañu dem ba ñun suñu biir sax comprendre du tuñ son yu léegi amul kenn amatul sañ-sañee. Mm. Ah, am sa liberté d'expression am na nooy waxee sax booy wax nit yi di la wokk wala ñu lay xool ne la li ngay wax waroo ko wax. Mm. te Sénégal bu njëkk ba nit yi dañoo amoon liberté li nga xam ne nii sentir nañ ko ci penc mi ñu wax ko mais léegi kenn amatul sañ-sañ boobu soo waxee ñu jàpp tëj. Mm. Ah, yeneen ak yeneen léegi. post Facebook pour demander pour poser de questions sax. Mhm. ñu jàppale tëj mais li si gën a graaw mooy que ni dafa am benn parti buñ ko jagleel. ñu nekk au pouvoir. Mm. ñoom am nañ sañ-sañu wax lu leen neex nañ taal kër diw nañu rey diw diw dañu ko war a nii mais quand il s'agit mm. euh, ci côté opposition bi nga gis ni benn erreur bu ndaw buñ ko defee si communication ñu fekk leen fa ñu nekk. Mm. Euh, brutaliser leen yóbbu leen ci kaso yi dem tëj leen fa bàyyi leen fàtte leen leen fa li lay kay wan bi mooy. ki nga xam ne moo di Fadilou su ma juumul démb am ans ci kaso bi. ndeysaan te te post Facebook moo taxoon ñu ñu jàpp ko xam nga ni loolu aussi du yoon <coughs> leneen li ngay wax itam si mbirum communication boobu noonu président Macky Sall sàkku ko ñoŋal mm-hmm. jot na ko ni tam mu wax ak moom itamit porte parole am que moom moo fi taxaw carrément mm-hmm. ne ko wax ñu dégg ko c'est tout à fait un problème pour sa communication ñoŋ da jox koo xamante ne nii fu muy waxee mm-hmm. baatam du mel ni man ñoom ñëpp la parce que fi nii Amadou Ba rek ci plateau yi la ñuy dégg Amadou Ba Amadou Ba kenn waxatul li président Sall liggéey c'est euh, tout à fait ah, normal nag. mu jot na nag mu dindi fa Abdou Karim Fofana seet koo xamante ne ni peut-être moom li mu bëgg lépp ñu koy wane. Hmm. ñu tegal ko ko fa façon yi. d'accord Alaaji ñu dalee kon ci coupe ah. fu ñuy démarrer de Koutal ñëwal ci communication bi non non Koutal Matar loolu mujjee bu ko defee boo boo kiiwul ma buubaale la nga génn ak moom damaa <laughs> bëgg nga mujjee ko boo neree xoos ma buub la nga génnaat. ñëwal ci <laughs> communication président Sall bi nga xam ni <laughs> jàpp nañu daal ministre yi xaw nañ cee laj ji ba tax mu ni daal ci conseil des ministres bu mujj bi nañ ci taxaw. waaw. Hmm. xam nga président moom. Hmm. Euh, am na lu bari loo xamante ne bii defar def na ko ci biir réew mi. dëgg la sénégalais yi moom teg nañ ci seen bët. Hmm. waaye sénégalais yi moom dañuy focus. ci li mu waroon def te defoo ko. parce que loolu tamit mooy li nga xam ne mooy li gën a mën a doxal réew mi mm-hmm. maanaam nit ñi mm-hmm. mën a dëkk ci réew mi xajoo fi waaw eh, yoon tegu ci yoon mm-hmm. te loolu président daf ñu ko promettre woon te loolu bokk na ci li taxoon sénégalais yi fal ko parce dañu jàppoon ni ay dérive yoo xamante ni am na ci lu jëm ci injustice ci wàllu justice ba nit ñi ne woon ah kii de nañ ko fal moo tax it bi mu ñëwee loolu la ñu promettroon taxawaay bu mu waroon am ci wàllu justice. Mhm. na xool nag foofu ba xam lu foofu moom chaque jour ñu ngi ciy wax. Mhm. defe naa ne gaa yaa ngi ciy communiquer maanaam li gënoon a yitteel sénégalais yi. Mhm. parce que fi mu toll nii li gën a yitteel sénégalais yi rek mooy. yoon yoon waaw. ak loo mën a tabax ak loo mën a defit du feeñ. waaw mais loolu parce que li yitteel nit alaaji kilifa buy liggéey da koy wane. yaa ngi defar ay yoon di tabax ay yoon. waaye ci boppam lañ bëgg. yoon Euh, ñëpp gis ci seen bopp. yoon parce que bu ñëpp gisoon seen bopp ci yoon rek. Mm. Euh, je pense que ni bu boobaa. dëkk bi jaar yoon yëpp dinañ ko ko mën a waxal xam nga lu tax. Mm. parce que boobaa ñàkk cee wax. Mm. dootul doon yoon. Ah. waaw noppi ci mooy nekk moo nekkul yoon noppi ci mooy nekk kon. loo xam ne du yoon ah. kon nit ñi dañ ciy wax. loo loo tuddee dëkk bi amul yoon. waaw non dëkk bi euh, waxuma ni amul yoon. waaw yoon kañ am na mais dafa am ñum dafa mel ni yoon dafa am ñum fi nekkal xam nga tey bu fekkee ne. Hmm. Euh, boo waxee yow. Hmm. kuñ jàpp ni contre nga nguur. Hmm. Euh, say tànk du laal suuf. koo xam ne yaa ngi nekk ci nguur na moom am nga liberté wax waxee nu la neex. loolu rek xam nga loolu. Euh, te ñëpp di ay sénégalais. waaw loolu rek da gis nii Eh, ak jalgati am na ci mbir moom. waaw dëgg la donc yu mel noonu mooy yi nga xamante ne bii. ndax am na am na ko taxawoon fii nee na na leen dem attentat groupe Walfadjri taal ko. waaw dóor fay bomb. te mi ngi fii bawal gi mi ngi fii bawal di lekk ceeb ba léegi te ba ñuy jàpp terroriste yi kenn woowu ko waaw te loolu jëfi terroriste la loolu wax ju waxu terroriste la nañ leen dem taal wal fajir doon fa bomb loolu wax la joo xam ne wax ju garaaw la mi ngi fii ba léegi waaw man waxoon naa nag ne wal fajir dañ ko waroon a yóbbu ci yoon parce que waruñu ko woon a seetaan quoi parce que am loo xamante ne bi da ngay yóbbu ci def def li nga war a def mhm. même bu la yoon joxul dëgg yi bu fekkee ne joxuñu la dëgg yi nga ñëw taxaw wax ni kat ah ki ma waxoon lii de yóbbu naa ko ci yoon waaye joxuñu ma dëgg te alaaji papito karaami papito karaami gaañu waaw bi ñu caricaturé lobs moom mu revue de presse ko waaw dañoo auto saisir dañ ci kiyam jàpp ko voilà donc yooyu mooy yi nga xam ni mooy kii donc Euh, li mu waroon a def te defu ko dafa gën a fës mhm. li mu def mhm. waaw loolu moo tax kenn du mën a wax ci li mu de li mu def d'accord voilà ayca kon ñu jàll ci beneen bi maître El Hadj déedéet avant maître El mooy rapport bi nga xam ni moom la ah non moom mujjee ko baal ma mujjee ko ñëwal ci rapport bi génn te euh, mel ni ko desal ginnaaw kii bi waaw mel ni ku desal sa yow sax daa mel da nga leen boole quoi parce que maa ngi la laaj ci bilan bi laa la boole daf mel na nga ciy dugalaale loolu waaw loolu lépp benn la waaw ndax lii rapport la bu génn buy wane daal démocratie wala liberté dafa waaw Sénégal da cee dellu ginnaaw loolu moom leer na Sénégal da cee dellu ginnaaw bu baax ah waaw non Sénégal moom ku ne xam na ni sony bu hmm. jamono Abdoulaye Wade fii la gars yi diri ab kees ne góor gi dee na teg ko fële hmm. jamono Abdoulaye Wade gis nga fi Sidy Lamine amal fii 19 hmm. mars yaanaa Mm. amal ko fii mm. ci place de l'Obélisque waaw Abdoulaye Wade amal ko mm. ci buntu pale lépp di benn bés bi mm-hmm. nit ñi di wax lu leen naqari jamonoy Abdoulaye Wade gis nga fii assemblée nationale wala voté mm-hmm. askan wa dem buntu assemblée nationale toog fa di xaar waaw Abdoulaye Wade biñ ko waxee mu ne loolu démocratie moo ci gañe yéen it buñ dem la leen seen ménage militant ah oui ah yi ñii dem ñii de ñii dem nga gis taxawaay bi nga xamante ne bii moom moo fa amoon. donc jamonoy Abdoulaye am na yu bari yoo xamante ne bii amoon na. te hmm. léegi amatuñ ko. nit ñi dañ daan manifester est-ce que place na fa. dajale juróomi nit le fait léegi yow. mbir mi tux rek bi ngay gisee ni dell na ginnaaw rek parce que bu ñu jógee place de l'Obélisque léegi di ko amal fii. ay xaar xaar yàlla ak ay kii ak yi di tux moo lay wane ne li ñu delloo ginnaaw noonu rek loolu la yëf yi delloo ginnaaw donc ñooñu. Hmm. lu ñu wax lu ñu gis la. ok ci maanaam nit ñi am na luñ bëgg a wax waaye mayuñu leen fuñ ko waxee. waaw nit ñi moom ma wax la leen moom chaque jour ku ci ne am na loo xam ne bëgg nga koo wax mais mënoo koo wax. Hmm. donc moo tax pareen saay nga dégg nit nekk ca bitim réew di waxee mbir yi noo xamante ne bi sax da ngay xam ne jaaduwut. Hmm. Euh, ni mu koy waxee waaye léeg-léeg am ci kontante parce que li tax nga ciy am kontante. Hmm. mooy li nga bëgg wax mënatoo koo wax. d'accord waaw donc yooyu la quoi. mais wax na ni am na fi opposant boo xam da koy wax lu nekk mais euh, démocratie réew mi moo tax mu bàyyi woon ko këram muy toog di lekk ceeb wax na nee na lu da day xëy di ko saaga ba ngoon mais mu bàyyi ko këram. man de dégguma loolu saaga moom dégguma ko wax dëgg fi yàlla. Hmm. peut nag xam naa ñi koy wax. Hmm. est-ce que moom mu ngi déglu. Hmm. man dama jàpp ni président Macky Sall bu doon déglu. yi ñu koy wax bu doon mi ngi koy déglu. kon nii mu ko jàppee du ko ko jàppee peut-être dañ koy nettali. naan ko lii la la wax. waaw man loolu laa gën a gëm quoi parce que gëw ma nii. bu doon mi ngi koy déglu rek kii. dina xam ni. li mu fi daan wax nii rek. Hmm. moom yu bari daan wax na ko yu bari moo ko bokkaleeg ko de. waaw wax na ko fi waat doon na ko wax moom kañ dafa toll ci ñu jox ko lengay ñu ñu doon xaar mu jëf ko mais yu ci bari waxoon na ko am na lu mu waxoon ci justice loo xamante bi lu am solo la. Ah. wax ni day tabax li nga xamante ni bi mooy ngi fexe ba nit ñi yem ci wàll yoon yooyu yëpp ay engagement la yu am solo yoo xamante ni bi wax dëgg fa yàlla. Hmm. waxoon na ko. mais dafa toll ci war ko woon a def. Euh, de defu ko loolu mooy problème bi waxoon na fi def mel wax ju mel nii daal bu Abdoulaye Wade kii dinaa dajale nangami jeune waaw ñu dem palais déloger waaw yooyu waxoon na ko yooyu hmm. ay wax ay waxu politique la ah loolu politique la woon waaw xam nga waxu politique moom lu mu gëmul waaw mooy mooy comme li Ousmane Sonko wax rek wax Ousmane Sonko bi mu demee ba toll ci période boo xamante ni hmm. mënoon naa dëgg bu ñëwoon kat Ousmane Sonko def na déclaration bu wuuteeg la mu defoon keroog hmm. kon président Macky Sall du fi nekkoon kon ba tey mais déclaration bi mu defoon déclaration bu responsable la nañ leen ko gunge mu yeggale mandat bi ci jàmm ak salaam loolu waaw mu nekk déclaration boo xamante ni nit ñi dañuy jël loolu sàtti sànni ko fële mel hmm. ni loolu musta am est-ce que ma ray mbaa ma ray moo ko tiital waaw ah, mais yooyu ay wax la yoo xamante ni ay langage politique la ku ne hmm. wax na lu ni mel hmm. politicien bu nekk wax nga lu ni mel quoi mais boo utiliser waxu politique nit ki taxaw ci tribune politique ah galvaniser kii woom ak yooyu troubam mhm. di wax yenn wax yoo xam mais da lay wóor ne la wax yii dafa am lu muy signifier après. d'accord ay wax la yoo xamante ni nekkul ni day ànd ak i jëf. d'accord voilà parce que boo seetee depuis que ñu toog ba nëgë ni. Mm. amul benn yoon boo xam ne opposition bi dafa jóge rek pour jubali dem xeex. mais day am lu xew ba pare. d'accord maanaam kon xeex yi am yëpp nekkul ni ñoom lu ñu sooke la. d'accord voilà. daanaka de nuyu fi Maître El Hadji Diouf doo nga fi xaj jënd waxtu wa jeexal. waaw maître El Hadj Diouf <laughs> ku taal ba taal. alaaji ndaanaan la quoi. ah wàll grand ndaanaan la waaw. xam nga li tax mu doon ndaanaan. waaw maanaam. moom politique gu 88 lay politique. alaaji. waaw parce que jamono dafa dox. yow alaaji dégg nga li ma la wax est <coughs> li ma la présenté. mais maître El Hadj Diouf dafa kii quoi. xam nga li ma la présent dégg nga ko. xam nga maître El Hadj Diouf sax dane waaw. lu jëm ci mbay mi kii bi dinañ seet nu ñuy def maanaam ci seet la tool nañ ñun nag ku gis la ñuy wër. déedéet alaaji. waruñu kuy seet. noonu mais kii kii ñëw day seet nu muy def ba régler ko. non non kuy def la ñu. waxin la dinaa seet nu ma def ba defar ko. wax wax du wax seet boo falee day ñaan boo may leen ko temps mu seet. waaw seet ba balaa muy gis. balaa ngay seet bay gis léegi voilà lu tax nga am nag ñoo xam ne dañoo gis ba pare. léegi lu tax nga ni fi ñukk alaaji ah. avion yi mu bëgg a def ci région yi. Mm-hmm. taxi avion yi ak it ah. programme am bi mu teg. Ah, que moom xam nga loolu moom mooy loolu moom moo lay wan ne la seetut bu seetoon rek dina xam ni. Mm-hmm. <laughs> loolu moom mënu ko. lu tax waaw dafa am lu jiitu quoi xam nga am réew moom. Mm-hmm. dafa am lu jiitu quoi xam nga tey jii. wax dëgg fa yàlla boo ñëwee di tabax kër. Euh, li njëkk mooy nga xoolaat fondement bi. Mhm. mais boo bëggee jékki-jékki rek ñëw eh, étage bi ni ma ko mën a kii maanaam dafa ñëw jënd kër rek étage kër ga mën na ne mëpp daanu. <laughs> waa génn leen voilà génn leen ma jigéen jógal.